bu doon état la rek non Sénégal weesu na fii quoi dëkk boo xamante on est un pays pauvre mais on est dirigé par des milliardaires bu noon état on est dimbali weesu nañ fii les les les acteurs de développement société civile ñi nga xamante ne ñi ngi ci koñ yi di def lu baax te yàlla tax yàlla jaarale wërsëgu mbooloo si seen loxo ñooñu ñoo war a taxaw nangu seen koñ ci loxo politiciens yi mu jeex mbéjub kanam nag borom moo koy fajal boppam c'est pas juste aux politiciens de diriger ce pays politiciens yi matuñu un million te ñun 16 millions lañu ñoom dañ ñu kidnappé di di kidnappé di di ñu nax élection ba élection la nous ñëw wala ñu am seen i intérêt personnel ay tabaski ay korité ay lii nga jël ay nag ay kii jéem a dóor xelu nit ñi te population bi fii nii affaire bi yag na fi ça fait des années ku ne fii lay jaar mais duñ ko mës défar tay bo xolé xoolee daara alxuraan fi nek dañ leen confiner dañ leen jox agn ak il y a eu quatre daara au niveau de euh, au niveau de cité au niveau de la cité millionnaire ak Arafat donc cadre d'arrêt, yi toll si quelques xale ñu confiner leen sur place di leen jox añ ak euh, tous les jours euh, population bi nag les familles les plus vulnérables ñu leen di jox vivre di leen jàppale daal xam nga comme li may wax rek euh, acte citoyenneté la daal jaamu yàlla si nit ñi nit ki moom boo dëkkee ci gox yàlla sepp la say biir morom am lu mu jaar jaar la sa loxo da nga laan war a nemmeeku ndax moom fii moom ñi fi dëkk dong ko mën a defar waaw yàlla suñu borom moom day jël wërsëgu famille jaarle ko ci nit dina jël wërsëgu dëkk jiital kenn kooku bu gàttee xel day yaakaar ne yëf yi moom la mais yëf yëpp suñu borom la dañ ko delloo yàlla rek. Grand Yoff ñoom ñoom ñoo ñoo ñoo demandé rek yàgg na nekkul tey sax bi may nekkee xale di football sax dañoo doon wax yow yaay suñu meer yaay suñu maire donc tey ji xëy na bàyyi nañu football bi ay citoyen lañu. bekkuñu ci benn parti politique ñun Grand Yoff la ñuy politigal population bi la ñuy politigal Grand Yoff moom mun nañ xëy na tay rek mais xëy na liñ li def moom ci kàttanu yàlla moom te yàlla rek tax loolu moom ñëpp teg nañ seen bët voilà donc tey nit ñi ah, yaakaar lañu am si ñun yaakaar googu ñu am si ñun en tant que doom yàlla bu yaakaar ji tas te ñun tamit tey pare nañu pour pour defar fii

donc euh, mënuñu def loolu jaamu yàlla si nit ñi di ko wax nit ñi di lancer un appel à la jeunesse jeunesse bi ñoo war a jël seen destin en main buñ ci xaar kenn. yàgg na fi suuf la ak ndox boo xamante vraiment sonaloon na leen trop oto yi du ñu mën a jàll ba euh, démb rek euh, benn car rapide këpp na fi donc après bon ñun ñu gis loolu en tant que citoyen ñoom bi ñu sollicité mënuñu def lu du répondre si loolu moo tax ñu indi leen ndaraan ak camion. ak jeunes yëpp génn pour jàpp si liggéey mi ndax li mën fi jóge